ok ah foofu ñu dañuy liggéey xam nga looy wax nii di laaj est-ce que votre kii c'est vrai eh, ñun sa morom nekku fi Mass Mass nee na il gagne trente millions d'euros par par semaine wala par jour la wax sans compter ses publicité mm-hmm. yow Pape Jonas laa wax nga nga may génneel Mass ci Pape. manche bi nga xam ne commentaire bu am solo la def man commentaire yi lii laa si bëgg ah su objectif ñu ciy jàng. Mhm. ñu ciy joxe information ñu ciy waxtaan donc débat bi su ngeen bokk. Mhm. jo naas mi laa la wax nga génneel ma ko. nga may génneel manche mu am solo moom nga xam ne li mu commenté woon laa bëggoon a lire tey pap alors ma bàyyi la nga eggali. Mhm. Euh, dara ko. bon euh, Bamba euh, savez-vous que Sadio Mané perçoit euh, plus de huit milliards de francs CFA par année. huit milliards de francs huit milliards de francs CFA par année pas moins de euh, de huit milliards de francs CFA par année Sadio Mané euh, xam naa dina euh, internet dinañ damaa bëgg politique li muy wane war rek c' est assez relatif moom mooy dafa gis du sérieux au Sénégal. Mhm. xaalis dafa sax ci xol. on ne dit pas que ni Sadio nit ku baax la dafa simple dafa nang mais xaalis moo sax ci xol mën nga jël nag may ka la neex mais booy dénk da ngay dénk ka nga wóolu. mais tey jii lii mu bëgg a def Sénégal ces projet sportifs wax na ko Ousmane Sonko mu nekk lu am solo um, um, Ousmane Sonko magnifié ko lii mu def ci Air Sénégal ci club bu naan Bourgues Foot 18 euh, mu lu lu am solo la mais tamit di glisser di wax na tamit exemple la c'est le prototype parfait d'un Sénégalais exemplaire ndax nag lii mu am nii xëy na am na ñu mu ëppale woon mais ñi ko fi am te defuñu ko tamit il faut ñu lancer un appel aux joueurs de l'équipe nationale du Sénégal mm-hmm. yàlla dogal na li muy dogal ci ñoom feneen fu ñu ko def yàq nañ ko mooy nañ ko indi Sénégal parce que on a vu bon li ñu gis bari na gis nañ ñoo xam ne bi ñu ko yoree xam nga ay jet privé lañ doon laal laal seeni i dugal ci seen ndaw mais moom dugal foofu yëpp li mu bëgg mooy delloo ko Sénégalais yi c'est très important fekk nañ fi lu ne tey lu baax a ñëw mais fekk nañ fi ñu ko yor dugg Sénégal fii xëj ci xale jigéen yi dugal ci bateau dem 15 jours non non nan waxante dëgg tamit il pour ñu wax nit ñi dëgg nii la demee Sadio lii mu def tey jii c'est un mais gis nañ ñu ko yoroon ñoo xam ne il faisait du n'importe quoi fii ci hmm. Sénégal mu nekk loo xam dañ koy saluer yàlla na ko yàlla kattanal may ko doole may ko wér ndax lii lu am am solo la mën naa law tequñu mën naa law teq ku ne mais li ñu ciy jàngatewaat xam nga mooy leen rek hmm. mooy tey ji ubbi yaatal bi nga xamante ni ñi fi nekk yaatal nañ ko tey hmm. ji parce que damay wax ni benn affaire ni nit ki bu bu bu ku ñeme dañ laa dégg surtout sérieux bi mu gis si ñoom waa surtout sérieux bi surtout parce que tamit damay wax ni benn affaire que nii ni mu tàmbalee Euh, wala ni nga ko xamee rek boo ko gisee noonu nga koy àttee mm. j'espère que ni ñii jub-jubal bi nga xamante parce que wax naa léegi tout à que ni euh, li fi nekkoon tey ji moo tax lu bari ñu bari ñi méwuñu woon mm. parce que tey ji imaginer dëkk bi ñi fi nekkoon bi ñu fiy nekk euh, coow li bari woon na woon manifestation yi mooy yëngal yi xam nga day dem ba loolu mun na dàq ay investisseurs parce que euh, day nuru ni instabilité moo am ci dëkk boobu mm. tey ji xoolal Sénégal fi mu toll Sénégal yi li ñu bëggoon am nañ ko mooy changement mm. on a un nouveau régime mm. un régime boo xamante ni ay des personnes yoo xamante ni euh, je peux dire ni ay nit ñu dëgg la ñu bëgg seen réew lañu ay patriotes parce que loolu euh, ay patriotisme la ñu wane ba Sénégalais yi fal leen léegi nag ñooñu ñi nga xamante ni dañoo bëgg seen réew tey jii jiite fekkee ne am na visage bu ñuy wane boo xam ne ñu nekk à l'étranger danañ ñemewaat réew mi. Mm-hmm. danañ ñemewaat indi li nga xamante ni nañ ko biti parce que bari na ñoo waxuma rek Sadio Mané mais ay simple immigré yoo xam dañoo demoon jii am xaalis mais xaalis xamuñ fu ñu koy def. xamuñ fu ñu investir. Mm-hmm. parce que boo waxee tey ñu ne taxi boo fi indee nangam taxi yi dafa cher nangam ak nangam te j'espère loolu aussi suñu autorité mooy taxe rek quoi. Mm. félicitation wàññi lépp xam nga. Mm. donc ba ba ba ba ñi war a investir. wala ñi war a jëlee seen alal bitim réew muy immigré wala muy footballeur wala képp ku mu mënti doon nga ñemee indiwaat ci Sénégal parce que damay wax ne benn affaire am na ci loo investissement bu bëree ci dëkk chômage wàññeeku. merci et eh, félicitations en tout cas doomu Bambali bi euh, Sénégal yu bari war nañoo roy ci moom rawatina ñi nga xamante ne bii ay borom alal la ñu nekk bitim réew. alors Wally Seck ne sera pas finalement au Zénith de Paris ci euh, Sidi Diop li ko waral mooy élage waaw bon li ko waral mooy euh, Sidi Diop le même jour Wally dafay. dafay produire ci benn festival bu war a am Norvège. Mhm. Norvège bon c'est dans les pays scandinaves euh, en Europe euh, le même jour donc j'espère que ni bu fekkee ni Paris bu fekkee ni Paris la ko lay joué kii di joué Norvège je ne dis pas que ni mënul nekk ci benn euh, mënu mënu faa ñëw mais ñëw fa dana jafe trop parce que j'espère que ni nit moom jóge Norvège dem Paris bokkul ak jóge pikin dem HLM. Euh, mhm. donc am na ci loo xamante ni aussi bu amee ñu bañ ko gisee ci benn benn benn facette bi mais aussi ñu gis ko ni rek ni Wally Seck peut-être jour boobu dafa signé contrat jàmbur boo xamante ni euh, j'espère daf ko war a respecter parce que contrat jàmbur da nga ko war a remplir ba mu jeex tàkk donc ñu gis ko ci ci lu positif ci côté positif xam ne rek ñaari ñaar nañ ñoo xamante ni ñoo bokk réew mi euh, di exporter musique sénégalaise mu nekk loo xamante ni c'est bénéfique pour le Sénégal parce que doomu Sénégal mooy jouer Paris euh, Zénith beneen doomu Sénégal di jouer euh, kii la même jour mu nekk ñaari jours yoo xamante ni ñoom ñaar ñëpp dañoo génn ngir wane ji visage Sénégal te loolu Sénégal mooy ciy bénéficier mm. donc ñu bañ ko bañ gisee ci benn kii daal mm. pour man waaw ñu bañ koo gisee neen gis nga ah, gisee nañ ko neen ba pare xamul da non xam nga xamul da <laughs> hmm. parce que j'espère que ni wax gars yi nee nañ waal dafa signalé gauche jaar droite waaw non d'accord xam nga loolu loolu moom moom moo koy parce que sur le plan professionnel laay waxee quoi xam nga waaye j'espère que ni du jël euh, du jël contrat boo xam uniquement pour bañ a dem Zénith Sidi Diop j'espère que ni contrat bi euh, moo koy yóbbu Europe le ce jour là man li ma ci gis rek mooy contrat moo ko retenir ba jour boobu du ca mën a dem mais woon wóor na ma ni Wally bu ko fekkoon Paris ak grandeur bi mu am dina fa dem comme ni sii Sidi aussi bu ko fekkoon euh, fële ca Norvège je sais pas Oslo la wala feneen fu nekk euh, Norvège moom it dana dem ci mbiru Wally pour man jour boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp dañoo nekk ci ay barab yu bokkul hmm. ku ci nekk di produire di liggéey sa liggéey ni mu ko war a parce que ñoom ñaar ñëpp ay contrat jaamalo ñëpp ku nekk war a remplir contrat bi noonu rek laa ko gisee ah Darmanko. waaw ah, Bamba. Hmm. moom nag moom moom moo ma gën a duyee ci loolu mais man daal Wally si Sidi Diop li ma ci mën a wax mooy dana war a bëggante wala ñu bàyyi. man daal lool laa ci wax <laughs> neexul ba neexul nag mënuñu sakk at euh, ñu séddoo six mois de six mois de jàmm. néew ma nag dama leen gis ñu nangam mais seen fan si laay repéré wu. six mois de jàmm nangam toujours euh, tabaski moom toujours day am lu xew. tabaski bi ma mujjee fàttaliku. en euh. direct leen jël. <laughs> télé toog fii ñu toog fii ñu jël laa leen en direct ñu ñuy mbalagante tabaski bii ñëw na jàmm dem na. xëy na tabaski bii di ñëw dinañ am jàmm yàlla ñu fi yàlla. Mara ma mën a seet de. non dafa yéeme de <laughs> waxoon na ko de newoon na de. ku yaakaar ne dañoo jubóo. non dañoo wala ñu. waaw mais bu bu bu a jubóo da cee am. a jubóo man daal ba ma déggee Thione Seck. waay Thione Seck ak Youssou Ndour noonu. ba mu demee noonu dañ koo continuer mais ñaan ñoo xam ne sax tabaski ñu am lu ñu la may tabaski bu mujjee fàttaliku ca waale ñu sol jàllaabe toog kër ah non c'est ça parce que waale moom ne woon na ko ah surprise dina am de mais waxul woon ne dina ñëw moom mais ne woon na ko surprise dina am ah, surprise baa ngi loolu la <laughs> c'est ça parce que surprise mën nga ko tuddee surprise parce que Sénégal les Sénégalais ne s'y attendaient pas foogoon nañ ni waali day dem Zénith bu Paris mais nag encore une fois je ne défends Euh, comprendre nga mais man j'espère que ni contrat moo ko retenir boo xamante ni moom moo ko yóbbu euh, Norvège. te xam nga gis nga yi am nii pourtant nit ñi ñu ngi koy ñaawal mais ak rafet. c'est le charme de la musique. mais bien sûr. c'est que gis nga jubóo gi ñuy wax. jubóo baaxul maanaam ci musique bi. c'est-à-dire sénégalais il faut ñu am <laughs> culture boobu. showbiz mënul am jubóo nekk. Ah, ah. Mm-hmm. cest à non mais Waly Waly Sidy Diop na leen gis ñuy añandoo ku nekk way nga xool li ngay yëg ak tamit li ngay yëg nii mais lii dafa neex. Mm-hmm. te Sidi Diop tamit nan waxante dëgg Sidi Diop Waly moo ko def ni mu mu doon mm-hmm. xaw ma ndax dégg nga ma. parce que tamit Waly am na am na am na ay ay ay ay soubassement yu am yoo xam ne. non bu ñu jubóoyee moom affaire bi yàqu la. c'est ça bi yàqu. c'est non loolu merci mais gars yi loolu lañ bëgg mënul nekk. xam nga xam nga nekk léegi jox léegi problème démarré waaw ah non oui problème moom ak showbiz ñoo ànd parce que dama lay wax benn affaire tey jii doon na gën a métti ñu nekkoon tey jii ay états nekk ci hip hop bi tey jii États-Unis hip hop bi ñoom seen seen seen seen rivalité moo gën a metti mais ay ba da gis ñoo xam ne ay pistolet la ñu doon dóorante te loolu amagul seen biir donc peut-être que ñoom man kay moo ma soof chaque at ñu jënd tàngal ne joxal joxal joxal sama baalu ko ak man loolu rek moo ma soof seen ci ñoom ñaar ah, donc non non juma wala ñu bàyyi te wan fan seen ne lii nii ko kii bu kii bu set concurrence mënuñoo nekk ah, concurrence bu seen am na mënuñoo nekk mënuñoo nekk Puyol Carles Puyol daan wax ne bàkkaar bi may def te yàlla du ma ko baal moom mooy ma porter le maillot du Real Madrid. te il est l'ami de Sergio Ramos il est l'ami de keneen ak keneen. <laughs> mais si ah, ah non jënd guro na joxal sa mag baalu ko ah li ma mujjee ak seetaan nii ak li ma déggaat nii. amul ñaari weer te te te non mais nag mais nag. ah mais man daal man. car seet sax de moom des fois mosal ma loolu. Ah. ah non mais Thiat Seck li mu li mu yàq waa ji ak li mu defaat nii ci biir kër gi dégg waaw dégg naa sax waal di waal di dee waayam nga naa danaan ko lii kenn xamul lan la non <laughs> dafa doy waar waaw Thiat moom day ñëw Fatou Fall maa ngi koy nuyu <laughs> Thiat day ñëw wax lu saf subaa mu def beneen affaire bu subaa mu dem tuddee ko doom waali daal li mu war a nangu mooy xale waali daal xale la mais moo njaboote neexul ba neexul baayam yii léegi ñu pare ci. Mhm. moom la yàlla dogal ci loolu tamit bon na tëddee njaaxaanaay. Mhm. c' est ça hein? Mhm. parce que tamit euh, à force de faire de choses man xam nga des fois sax bu nu sañoon Sidi Diop dem fenn mais tout tout Sidi Diop li ci ëpp ah c' est il faut ñu nangu ko li tax nit ñi di ko diglu naan coow lii ki mooy kan lu tax ñuy diglu musique am c' pour savoir est ce que. Ouais, mais est ce que est ce que euh, je ne dis pas mais damay wax ne rivalité wala concurrence bu bu bu bu amul euh, est ce que nit ki dinañ mën a xam dina mën a sax liggéey. parce que nit ki man damay wax ni concurrence mooy pousser à la personne à ce mu mu mu def benn effort bi ñàkk na daal ñàkkul lu xew de parce que man keroog gis naa Wally Seck di way vogue Matar Diop suba teel ak ay xaritu Matar Diop di ko way mais dégguma ba léegi mu way Sidi wala mu tudd tur Sidi loolu si gars def nañ ci ay remarques waaw mi ngi fa woon aussi même Matar ay xaritu Matar ñoo ñëwoon ak waa suba teel yi Wally di leen way mais euh, internautes lu ñu remarqué donc partage nañ ko a ci réseaux sociaux yi mooy Wally tuddul foofu Sidi waaw wax na fa suba teel label bi way leen way am ku mu way ne doomu ndeyu maxu mais ba tey tuddul turu Sidi Diop loolu aussi xaw na créer polémique donc internautes yi wax ci mhm. ñu ne Wally mbaadu dafa delluwaat fa mu nekkoon par rapport ak Sidi Diop ndax dafa dégg ay wax ndax xam nga itam Sénégal da gaaw a dégg ay wax mhm. waaw non mais xam nga tamit way nit ki du force waaye nit ki du force tey jii mën naa waaye mën ngaa. réeroo ngay bëgg amaat de. ah mais nag vraiment tamit yéen it bëgg réeroo am wala bëgg man kat comprendre ma yéen problème benn problème moo am mooy kii de day produire ci benn euh, bërëb kii di produire ci beneen bërëb ci benn jour jour yooyu bokk. daje faramaare na de. mais waa mais wuy ma El Hadj. El man. faramaare ba Kajoor ak Bawol sax. non xam nga non loolu débat bi Waly El Hadj avait pris avait pris une grosse décision. Mhm. daal dina ay fecc katam ay fecc katam dañuy dem Zénith bu Sidi Diop mu ngi leen di répéter le jour J dañuy dem produire ak moom. Mhm. jàppale ko ci spectacle. Mhm. déployer yeneen moyens yeneen moyens yeneen moyens c'est-à-dire que Waly jëloon na ay engagement entre temps lan moo changé xaw ma ko. mais je sais am na lu changé parce que Waly du war a jouer Norvège ay fecc katam dem ci Sidi Diop. ah non kon décision boobu c'est euh, loolu kon fi mu nekk nii mënatul nekk voilà donc kon am na. mënoon na nekk kay mënoon na nekk. joué Norvège waaw joué Norvège ay si fecc katam nekk fële ci studio. day dépendre ci style de musique bi mu fay joué. tey jii bu fa demee. non egguñu foofu waaye waa li mu jëlee fii la yóbbu fële ban style de musique. ah mais defal ndànk ah non mais non attends ah, non dafa am xoolal il faut mu respecter ñam fay fekk. xam nga wala bu ñu leen amélioré na. musique am non loolu d' accord naa ko. Ah, d' accord mais ban public ban public moo la fay fekk. waaw ah. bu ni bu ne la Norvège nga defee ne ay blanc la ndànk xam nga dañuy waxtaan. Hmm. Euh, tey jii Norvège dafa am benn communauté yu fa nekk. Hmm. une fort communauté gambienne. Hmm. ak une communauté sénégalaise. donc war na faa mën a yóbbu li exporter li nga xamante ni moo fi nekk mais aussi dama lay wax benn affaire que ni. dafa mun na faa yóbbu aussi parce que dama lay wax ne Youssou Ndour tey jii bari na barab yu mu doon joué dafa daan am ay seen ay sénégalais ay sénégambien mais terewul dafa am euh, lu mu fa daan joué mais su ma day wax ni euh, tey jii mën na fa yóbbu joué acoustique xam nga buy joué acoustique wala muy joué beneen style de musique bu différent ak euh, mbala mais mën na bañ a soxla ay fecckat pourquoi pas mënta digal ay fecckatam ñu dem rejoindre Sidy Diop c'est fort possible